amali opération de déguerpissement ngir rek xàll mbedd yi bokk na si li nga xam ne état moo ko jagleel ñi jiite gox yi goxaan yi Birame Mbaye Seck xam-xamam màcc si wàllu décentralisation di dikkaat rek si bile sañ-sañ ñu may maire yi. ci domaine bi ñuy wax nag ci wàllu urbanisme la ak aménagement ak habitat euh, domaine boobu maire am na sañ-sañ ci liñ ko dénk muy joxe autorisation de construire muy def ay lotissement muy def ay euh, ay ay euh, ay acte d'urbanisme am na sañ-sañu euh, mbedd mi nga xamante ni moom lañ ko dénk mu di ko saytu sañ-sañ la naam waaye nag am na fu mu yem bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Birame Mbaye Seck muy tudd mbirum kaaraange gi nga xam ne dañ koy soxla ci opération de des encombrements yi bu dee dangay def opération bi da nga soxla kaaraange da nga soxla kon police wala gendarmerie ñu ànd ci ak yow pour sécuriser opération bi sécuriser nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom nga fay fekk parce que li bañ mooy trouble li ñuy bañ mooy jëya wala loo xamante ni kenn seen souhaitul loolu maire donc du ko mën il faut mu ànd ci ak les préfets il faut mu ànd ci ak le gouverneur ak les ministères de l'intérieur les forces de sécurité ci gis-gisu Birame bay sekk coow lii ñu nemmeeku ci mbirum opération déguerpissement yi jaru ko dama euh, jàpp ne coow bi coowal politique bi moo ci ëpp waaye désencombrement yàgg na am dafa nekk nag opération moom te dafa comme day laal ay koom lu ci ëpp moo waral mu am coow. ci ay kàddoom nag préfet yi ak maire yi ñoom ñi jiite gox ya goxaan yi lépp lu ñuy sumb dañ see war a ànd nekk benn.